asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokku téléspectateur Equivox TV maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen euh, tey nag euh, dañu ñëw ci lu nga xam ne ni yaakaar naa fan yi ku ne gis na ne mooy coow ci réew mi wala ñëpp di ko waxtaane muy génne àddina ki nga xam ne moo doon le première tigre de Fass ñu di ko wax suñu mbay Mbaye ne kon koo xam ne jàmbaar la ci wàllu la mu daan yëngutu muy làmba nekkoon ci koo xam ne ci li ñu ñëpp wax maanaam gor la ci woon jàmbaar la ci woon waaye itam nekkul na ci woon ku nga xam ne nii maanaam ah maanaam royukaay la ci woon loolu defe naa mooy li am yàlla dogal mu génn àddina samedi passé ñu denc ko ci tuubaa encore une fois ñuy ñaanat yàlla mi nga xam ne moom moo man yàlla na ko yàlla jégal te xare ko aljana mook bépp doomu aadama mu fekk ci suuf si parce que tamit loolu mooy li am ci àddina kenn nekku fi continuer éternellement déedéet bés day ñëw nga wujji sa borom yàlla nay ànd ak yërmandeem ak njéggalam loolu la ñuy ñaan tey nag ñu seet si ki nga xam ne yaakaar naa ne ku ko laaj ci Mbaye Gueye hmm? wala ku bëgg a xam dara ci Mbaye Gueye boo ko laajee am na lu la ci war a mën a wax ndax bokkoon na ci xale yu nga xam ne moom daf leen uufan ci keppaaram muy zàlloo ba def leen ay champion yoo xam ne yaakaar naa ne doo laam-laamee seen mën a bëri doon laa laamee seen dara tey na kook la ñu seet si di ko jaale góor gi waaye tamit fas yii yéene jëli ci moom lu nga xam ne nii yaakaar naa ne bu ko génnee ñu baree baree bari dinañu xam leneen ci mbay Gueye Zal maa lay ziar di la jaale suñu papa Mbaye Gueye. Euh, asalaamaaleykum Babacar maa ngi lay nuyu di la fay di la ko jaale yow itam di ko jaale sama bopp man mii di ko jaale sama grand frère Moustapha Gueye. di ko jaale Malick Gueye di ko jaale Abdou Gueye di ko jaale Seynabou nga xam ne mooy caat nga xam ne mbay Gueye nekkoon na koo xam ne nit ku baax la li may njëkk a def rek mooy li may wax ni sama xol laa ko tibe damay ñaan yàlla mi nga xam ne mooy boroom lépp man lépp mu teeru ko dugal ko àjjana ni gën a kawe parce que mérité na loolu yàlla na ko yàlla def ci bark barke Seydina Muhammad Sall balaa may ñëw ci sa diggante ak Mbaye Gueye ak euh, Mbaye Gueye Koumron nag li ngeen dund bi nga jégee kër xëy yëg ñu ne la mbay Gueye génne na àddina lan nga njëkk a yëg noo accueillir nouvelle xanaa nouvelle bu metti bu tiis parce que bu ñu sañoon mu nekk ak ñun ba ci kanam a kanam mais nag yàlla kenn mënul xëcc ak moom waaw parce que euh, kullu nafsin saayaxatul mawti noonu la ko yàlla waxe te noonu la koy defee bu ñu sañoon nag mu nekk ci ñun waaye nag comme ñu la ko yàlla bëggee ñun dañuy ànd ci loolu rek quoi waaye nekk nekk na lu metti nekk na lu metti parce que soxla woon nañu ko mu nekk ak ñun ba ci kanam mais nag yàlla lu mu def rek loolu moom moo gën quoi metti na ma trop nag metti na trop te ni moom mettee xam naa ne bari naa ci ay morom kon yàlla na ko yàlla yërëm quoi. léegi su ma la laajee kan moo doon mbay gi kan mooy. Ah, ne fu ngeen jaar yéen ñaar seen ànd lu ko indi ak ku doonoon mbay Gueye. ndeysaan ki nekkoon mbay Gueye mooy nit koo xam ne ku am fulla am jomm te lu mu lay wax dëgg ci moom nekkoon koo xam ne man daf ma tàggat ci sama côté làmb dama jël lu bari ci moom mu nekkoon koo xam ne damay dama daan am combat gis ne kii nitu gagner la quoi da ngay am combat ngay gis ci moom ne kii dafa war a gagner voilà man nag dama ma bëggoon ba ma xam ko parce que lu taxoon loolu tamit man yaakaar naa bay naa ci sama waar parce que li mu ma daan digal dama ko daan def père nekkoon na koo xam ne am na lu bari lu ma xam ci làmb moo ko def ci man parce que dama ko daan déglu billaay wallaay mi ngi ci dëgg maa ngi ci fen mais dafa doon wax ne li tax nga neex ma <coughs> yow yaay gën a déglu samay wax ko Moustapha Gueye mm. waaw si te lu ma daan wax dama ko daan gis man dama daan am combat moo gënoon tax may rey sama bopp parce que dama naan kii ni muy sonne ak ni mu nekkee nit nitu jàmbaar kon war naa jël ci moom dara moo tax làmb daaw ma ko foye dama daan entraîner parce que dafa dañu mës a toog benn jour face écrit ñu entraîner ba pare noonu ñuy waxtaan xam nga rek temps bu moom da daan def chaque un mois mu woote bu ñu entraîner ba pare di critiquer gars yi ak di leen encourager quoi ci biir wax bi muy wax ba mu yàgg mu ne yéen ñi toog fii yëpp ay mbër ngeen waaye am na ci ñoo xam ne dañuy gunge rek quoi mais kii toog nii su ma yoroon ay milliards di ko def ci mbër yi ci moom mi laa koy def di ma wax loolu dafa nekkoon lu rëy ci man te daf ko prouver après ma gis ko ko te mbër yëpp ngi toog. billaa wallaahi après bi ma génnee mën a permis li mu wax René de mënoon na ko xax kii rek denc ko mais li ñuy wax ne nit ku dëggu la loolu moo la koy wan parce que man bi may door a dem Fass man nag katte moo ñu yóbbu woon foofu taa boobu katte mu nga fi woon man la woon Cheikh Mbaba Djib Diouf Sall Ndoye Faye ay Baara Faye ay xay sama rak bi ñu demee foofu ñaari fan yi ma bëri écriphage rek ci la waxe ne xale bii de bu Moustapha Gueye génnee am naa ku ma sama relève parce que boobu Max Mbergane bii nii moo ma daanoon suur boobu noonu parce que dama Max dama daan ñépp Max dugg si moom ak dégool ak euh, Assane Balde benn rab màggu ñoom sil Balde la buñ dugg see bàkku ma dëkkaleen ñu bañ ma jël ndën yëpp ràngale ko ci géew bi kenn jógul ba ma tekk sama ngem ba dem toog mag si jékki rek fël jël ndën mi samp ko ma dem dëkk ko noonu defuma échauffement defuma dara ma ñëw rek sëg di bëre mag si teq ma ma daanu noonu quoi ma gerde jóg di jooy. loolu fan laa amee wax. Fass fii ci déwénu Fass bi côté bureau kii wu Ablaye Wade seesu Ablaye Wade Moustapha Gueye moo doon tëgg mbapat moom. ñu may téye may xatraay ci guddi gi laa sàqi dem sama yoon après nag ñi mu desoon ay si di taabaani nag ñooñu mu naan leen xale bi day xale bu am jomm ngi kii daa mën bërëb ba pare te bañkat la kii dey bu mu safaagee demee man am naa relève ci la ma toppee ci la ma jàppee ba léegi nii moom lan moo taxoon mu toog nit ñëpp toog mu sañ a jël kàddu gu mel noonu wax ko devant le public ne maanaam bu doon def ay milliards ci yow la koy def lu mu gisoon ci yow ak lan la sentiroon gisoon mooy loolu balaa mu koy wax li ma la expliqué léegi nii loolu moom moom la njëkk a dund mooy bi may taa bi may bëre mbapat c'est parce que tamit aussi man bi may commencé ci làmba ji dama ci caaxaanut kon dama daan entraîner dama daan làmba ji da daan tëj gars yi dem di ne dañu jël vacances man Djily Mbaye Moustapha Guèye numéro 2 maa leen yar xale yooyu bu làmba ji tëjee toujours damay entraîner saay bu ñu laajee ñu ne Zal mi nga entraîné làmb tëj ak ñàkk tëj moo ci yemale voilà te amoon naa bëre bi tamit quoi amoon naa xam-xamu bëre bi mënul naa bëre gis na ko xam na ko xam na ne am naa fulla ji am naa joom ji te bëggoon naa ko tamit quoi loolu daal xam naa ne li ko motivé woon ba mu wax loolu ci la woon bokkoon quoi waaw mais wax ju indiwu kon benn jafe-jafe ci biir écrit pourtant déedéet parce que nag tamit aussi jamono yooyu ñu ñëpp fa nekkoon à part Tafa Gueye à moom xamoon na ne ña fa nekkoon kenn mënuma ci laalal suuf. boobu mën nga ma rappelaat yan mbër fa nekkoon jamono jooju. Cheikh Mbaba ma nga fa woon Jib Diouf ma nga fa woon ay Mala ay bari woon nañu. bari woon nañu Mala Camara Mala Camara. te Guèye Camara merci. bari woon nañu mbër yu fa nekkoon mais instant boobu noonu à part kenn mënu ma fa daan. loolu moo waraloon nag ma toppoon ci Tafa Guèye noonu. voilà loolu la quoi père daal. père daal nit woon koo xam ne. amoon nañu ay complexe parce que yow kii Babacar sama combat ak Ndiaga Diop euh, combat bi dafa taxaw ñu dem ba mu des ay vingt jours mu ñëw entraînement mu gis may bëre su may bëre gars yi di jàpp sama ngeen euh, mu bàyyi ba xam nga dañ daan def dix minutes ngeen ngeen arrêté ñu sensé adversaire yi nga dem ci keneen ci moment boobu ci lay ñëw wax ak man ne ma Zal yow mbëru bërëkat nga te mbëru bërëkat warul nangu di bëri ñuy téye ngémam ma ne ko ah mu ne ma waaw mu ne parce que buñ la téye li nga bëgg a def dootoo ko mun def kon fii ba combat bii ñëw sa ngem bëggatuma gis ñu téye ko Babacar noonu laa ko toppe toppee entraînement damay ñëw bëre ba ñu teg sama ngem kenn du ba kenn du laal sa ngem sama ngem boo xoolee Ndiaga Diop bi ma koy daan noonu la demee. seetaan naa combat maa jàpp mais moom jàppul. da jàpp di buuse daa mel ni. waaw dama jàpp di buuse di ko fàqat pour mu mën a déséquilibré ma def li ma bëgg. combat boobu jàll. sama combat maam Njambaan. bi mu taxawee mu ne ma zaal yow man werantuwu ma ne am nga doole werantuwu ma ne mën nga bëre. te ñi nga war a dajeel werantuwu ma ne ëpp ñu la doole mais. ñoo la gën a diis donc kon yow da nga war de bu ñu entraîné ñaari yoon da nga war a entraîné ñetti yoon ci journée bi noonu laa ko toppee tamit damay jóg fajar damay dem dix heures salle ba cinq heures damay ñëw entraitement gars yi saa yi bu ñëwee fa lañ may fekk donc li mu ma daan wax man dama ko daan def ba pare di ci gis njëriñ euh, moo tax gars yi poids lourds lu ñu doon nganda nganda ku ma ci jàppanteel doo ma yóbbu fenn euh, combat Moustapha Guèye ak euh, Tyson bu njëkk ba 97 voilà dañu dem ba arbitre war a souffler Pierre ñëw ci man ne ma demal wax ak sa waay man de bu doon yow la sama xel dina dal mu ngi ci dëgg maa ngi ci fenn parce que yow li ma lay wax à chaque fois damay gis na yaa ngi koy def mais keew dafa waane ba pare <laughs> dafa waane ba pare ñii mi risque ci bëre mais yow li ma lay wax da nga koy topp à la lettre demal nga wax ak moom parce que xam naa ne yow itam dina la déggal ci laa dem ma waxtaan ak Moustapha yi mais xam naa ne ay complice la ñu woon quoi. ndeysaan billaay wa mais lu mu jàppoon ne moom la tafa moom yow bu maanaam lu mu jàppoon ne moo waroon daan Tyson parce que Tyson boobu maanaam xale la nit ñi topp nañ ko siiw na mais boobu lan la gisoon ne moo war a daan Tyson ba mu ne la nga dem wax ak kee. ndax leer na ko ne moom li mu koy wax du ko def. voilà dèjà li mu doon wax noonu loolu la Tafa Gueye def parce que dafa ne woon dafa war a déglu booy bi parce que moom mooy ut si dara Tafa ok Tyson moom mooy si dara moom yàgg na ci làmb ji. juumloo ko rek la ko mën a def taxaw léewaatu moom booy bi bu yaa yàggee gars yi peut-être expérience bi tafaa am kee am ko peut-être public bi bu ñu yuuxoo booy bi dina jéem a forcer bu ko defee tafaa ci biir loolu mu juyoor moom kii ko mais xoo boo xoolee tafaa moo dóor moo attaqué moo dem bëre ji comprendre nga te moom loolu la doon bañ loolu la bañoon moom. te moom jàpp na ne bu doon yow la lim lay wax di nga ko def. dinaa ko def ko dégg parce que jaar nañ fi man moom ba tàyyi. ci ay combat yu bare bare lim may wax defee nii boo demee ba mu dëgër nag nga indi sa xalaatu bopp. mën nga ma cee indil ay ñaata combat yooyu yoo ma ñëwoon fan. man man ak Khadim Ndiaye parce que Khadim Ndiaye ku ne xam na ne dafa mënoon xeex. dafa mënoon xeex mu ne ma nag comme moo la xaw a su tuuti danga ko war a kole yow war a ko may distance. parce que de boo ko boo ko collee bu leen loxo bi même bu la dalee du metti donc ko war a jege nga xam ne bu loxo bi tàllee du mën a tàlle carrément pour dàll te ci nga koy mën a gën a mën a song mais per daal Babacar boo bëggee dégg-dëgg sama complice la woon sama waay la woon sama xarit la woon billaay wal kitaab bi am na ñoo xam ne sax dañu doon wax ne euh, yow la gën a bëgg ka tafaa gi wax jooju daan nañ ko dégg ay jamono yaakaar naa waa loolu man dégg naa ko ba tàyyi parce que nag tamit aussi xam li ñuy wax ne xëy na Tapha la gën a bokkal moom la bokkal mais bu amee xale boo xam ne ñëw na ci moom jox ko léppam jox ko cër jox respecté ko te tam ba pare man li li mu li moom euh, damay wax ne xëy na peut-être jëluma lépp ci moom mais xadar bi nekkoon ci moom man ku ne gisoon na sama làmb dama daan waxtu dama lu na laa doon def <laughs> waaw voilà mu ngi noonu. gis sàll bu takkaan jaaj ba pare mais ni kuy jat di dem di ñëw. mu ngi noonu nga gis physique bi macha allah. mu ngi noonu parce que euh, loolu dama ko doon gis ci père quoi malgré balaa muy bëri man fekk naa bàyyi na làmb mais gis naa ne ci biir entraînement yi soo amoon komba ak bu ñu daan entraîné ni mu daan waxee ak yow fulla ji mu daan waxee ak yow euh, non yàlla na ko yàlla yërëm. yal na ko yàlla yërëm tàbbal ko àjjana yi gën a kawe mën naa la wax benn anecdote mës nañu kii bu Boigny bi mu gaañoo xam nga doomam moo ko moo jëloon pouvoir bi buy seet si Abdou Diouf fii Gaston organisé làmb euh, Louga Mbapat suur boobu noonu dafa ma wax ne da ngay dem bëre ji maak moom ñoo dem ñoo bokk benn néeg paa boobu sama complice la Babacar ñoo bokk benn néeg billaahi wallaahi wal kitaabi guddi googu baaboo yi njaga jóob benn boobu noonu am na beneen mbër bu ñu doon wax Rambo guddi googu ñoom ñett yëpp laa tegale Gaston leer na ko loolu noonu paa boobu sama waay la woon ci côté làmb non sama waay la woon billaawul kitaab xëy na nag àdduna moom des fois da ngay dem ba mu yàgg mooy loolu quoi. données yi changé. waaw yi jaxasoo affaire yi jaxasoo. waaye daal xam naa ne man amoon na cofeel trop ci man te man tam joxoon naa ko cër te xamoon naa ne bëgg na ma. te doon naa ko déglu bu baax tamit yal na ko yàlla yërëm. sa jóge Fass kon metti woon na ko xanaa. si metti woon na ko metti woon na ko trop parce que euh, bi jóge Fass bi amee am na benn mbër bu demoon di ko bëgg fa des di entraîner parce que mbër boobu moo provoqué lépp Babacar hmm. man jëluma woon décision pour génn Fass mais kooku dañu waxtaan nii rek man ak sama xale yi am ku ci guddi gi bi ñu waxtaanee ba pare am ku woo Tafa ne ko saal génn écurie man damaa yeewu suba teel rek dégg maa Guèye di wax ne Sall génne équipage Babacar billaahi wallaahi wal kitaabi te damay fekk ki mbay mbay Guèye nii la demee mais moom jëluma woon di soo dem jóge équipage dama waxtaan parce que sama combat ak Ibou Ndafa xëy na peut-être xawoon naa ci am lu ma métti tuuti ci jàppale yeeg yooyu ma ne dinaa dem waxtaan ak ñoom mais xale boobu moo woo Tafa Gueye wax ko ko Tafa Gueye waroon na dawal compréhension mais nii la waroon demee jàppewu ma ko dara après ci la woo encadrement bi yëpp booy bi dem na bu ko kenn jëlee affaire yooyu ci ni ñu ma ko waxee te après ci lay xam nag ne xele bi def loolu kër mbay gi mii nelaw tey nii yal na ko yàlla yërëm moo ma ko wax Fass Mbaaw ne ma pourtant sa génne Fass day benn xele ci sa xele yi ñoo ko wax Tafa Gueye Tafa woo ñun ñëpp wax ñu ko waaye lu ma méttee ci àdduna noonu mosul am sama àdduna génn sa génn Fass da ko naqari ndeysaan métti woon na ko métti woon na ko trop yàlla xam ne moo ma ko wax tuddal ma turu booy bi ne ma booy bi ñëwaat na di bëgg a entraîné foofu ma aaye ko ñëw na fa lundi ñëw na fa mardi bëgg fa entraîné ma ne ko déedéet yow workat nga waa doo ànd ak ay nit ngeen wax ba pare nga rocceeku ñëw di ko kii et booy boobu ba ni ma lay wax yow mosuma taxaw moom wax ko ne ko yaa defoon loolu Babacar dama ko bàyyi ci biir ba léegi nii te ñu ngi gisee ñu ngi waxtaan xam nga àddina mu solo waaye Père Mbaye Guèye daal xam naa ne làmb moom ku ko déggal yàlla mën na laa suturaal